les enfants ont des besoins spécifiques et chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Partout, les enfants subissent au quotidien toute forme de violence et en cette période de pandémie, nous sommes plus exposés. Ne négligez pas nos droits durant cette période de Covid. Protégez tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique, négligence, Notre opinion n'a pas été prise en compte durant cette période. La covid ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droit à l'égalité, droit à une famille, à la protection, droit à l'éducation, droit au loisir, droit à l'expression. Les enfants, l'AGS et Save the Children, tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de Covid. auditrice rajo Afia FM di nuyu di leen ziar di jaajëfal euh, bu baax seen euh, déglu ak seen yitte bi ngeen jox seen rajo Afia FM nekk fii ci Grand Yoff ñu dikkaat ak yéen ci benn émission boo xamante ni dañ ci waxtaanee lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum violence basée sur le genre maanaam euh, lépp loo xamante ni ay beddi konte laak ñu ni mel jëmale ko si jigéen ci loolu nag tey ñu fas yéene si ànd ak nii di waa AJS di kuréel gi nga xamante ni. moo ëmb jigéen ñi nekk Sénégal te yëngu ci wàllu yoon ñu fas yéene waxtaane nag tey ci violence yooyu ak euh, jamono yi nga xamante ni moom la nekk muy jamonoy Covid 19 ngeen xam mu lëmbee àdduna nga këpp ñoom euh, ñii di waa AJS ban taxawaay lañ ci am ci yooyu les formes de violence lépp dinañ si dikkaat. ak nan la ñuy def ngir xeex euh, wàllum violence yooyu lee dinañ ko waxtaanee tey jii kiñ ci àndal moo di Sido jàlloo Sido Diallo di coordonnatrice boutique de droit bu Médina euh, Sido ñu ngi lay nuyu di jaajëfal sa teewaay. jërëjëf soxna si maa ngi lay delloo nuyoo bi di wax ni maa ngi kontaan tey nekk fii tey ci seen rajo bi comme ni nga ko waxee ñu fas yéene waxtaanee ci euh, violence basée sur le genre. di wax ni euh, asso suñu association bi association des juristes sénégalaises la mooy association bi nga xamante ne daf fi euh, toog pour ak ak yelleefu doomu aadama mais plus particulièrement dañuy teg loxo ci jigéen ak xale. parce que dañuy seetlu ci suñu ay société muy jigéen ku jigéen ki muy ko xale ki moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoo gën a vulnérable. Mm. ci société bi. Mm. man nag maa ngi bokk ci association bi di coordonner boutique de droit bu nekk à la Médina. Euh, moom Sido Diallo lay wuyoo di coordonnatrice boutique de droit bu Médina tey ñuy waxtaanee wàllum euh, VBG maanaam violence basée sur le genre muy xeetu beddikonte euh, ak yu ni mel yoo xamante ni dañ koy teg jigéen wala sax xale comme ni nga ko waxee sànq tey bu ñu doon jéem a tënk rek lan mooy VBG lan lay doon. waaw soxna si jërëjëf ci question bi suñu nee VBG. moom mooy xeetu mettal bi nga xamante ne mën nañ ko teg doomu aadama parce que jigéen la peut-être parce que góor la wala parce que lii lay représenté ci société bi. Mm-hmm. mais suñu xoolee suñu société sénégalaise tey suñu waxee VBG victime yi. Mm-hmm. soo seetloo jigéen ñi la ak xale yi. ndaxte mm-hmm. société bi ni ñu ko tënkee ni ñu ko définir. place jigéen ak place su góor bokkul wala jigéen comme xale moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les sujets vulnérables. léegi nag su ñu nee violence yi nag xeetu violence yi bëri na mhm. peut-être mën nañ ci revenir mën nañ ne violence physique maanaam violence bi nga xamante ne mitital bi nga xamante ne ci yaram nga koy mën a sentir mhm. wala mu nekk ay dóor ay ay gaañu gaañ li nga xamante ne nit su ko seetloo mën na ko gis mhm. wala soo rapproché wu tey ci ci hôpital ba médecin bi dina mën a constater loolu ci ka ah, ci xeetu violence yooyu ba tey ci violence yi mën nañu wax ci violence yi nga xamante ne moom mooy violence psychologique yooyu nag tey pour ñu prouver ko sax déjà c'est un problème. Mm. ndax mooy li nga xamante ne nit ki da koy sentir wala daf koy metti te su ko peut su ko waxul nit nit ki mënul xam euh, ni que kii mu ngi souffrir. Mm. wala teg nañ euh, euh, xeetu métital boobu noonu. Mm. toujours ci violence yi mun nañ la vie violence sexuelle mu ngi fi maanaam tey peut-être que mënuñu xëy suba rek te gisuñu rajo yi. ah relater ay fait de viol ay fait de pédophilie mënuñu mm-hmm. ko c'est rare nga ñu bañ ko constater dans mm-hmm. les rajo mm-hmm. loolu moom moo tax gis nañ ni récemment euh, l'État du Sénégal a eu à criminaliser le viol et la pédophilie pour permettre vraiment gis ni mu nekk xeetu métal bi nga xamante ne tey il fallait que gis nañ ni ko wala société civile bi joué nañ ci rôle bi nga xamante ne ñu xalaat tey il faut ñu élever peine bi ba yóbbu ko jëlee ko délit yóbbu ko crime toujours violence yi nga xamante ne ci koom-koom lañ ko mën na nattee. mooy violence économique mhm. Mhm. violence économique violence économique bi nag suñ ko seetloo bu baax lu mu gën a bëri ci. Euh, ménage bi lay amee ci biir néegu sëy yi lay amee peut-être que mu nekk ki nga xamante ne ndax suñu ne sëy ci biir néegu sëy rek. Mhm. borom kër bi moom mooy yore charge familiale yi. peut-être d'habitude la plupart du temps moom moo koy teg. njabootam wala mu teg ko soxnaam te mm-hmm. jigéen ñi aussi ak xale yi comme ni ma ko waxee en amont mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les principal victimes de VBG mm-hmm. violence yooyu yëpp nga euh, cité yéen da ngeen ciy taxaw ngir jàppale nit ki nga xamante ni moom la dal muy góor muy jigéen wax nga ko sànq bu ne genre du jigéen rek mais dafa boole ñoom ñaar ñëpp muy jigéen wala góor léegi yow ban yéen euh, bu dee de yi ban taxawaay ngeen di am bu dee nit ki mu ngi subir forme de violence yooyu nga xamante ni moom nga fi lim léegi ok merci encore ci question bi suñu boutique de droit yi comme ni nga ko waxee ay màkkaan la maanaam ay boutique comme ni ñu ko waxee boutique mooy li nga xamante ne tey accessibilité yi ci la ñu joué. Mhm. peut-être nit soo génnee ci buntu kër rek li ngay njëkk a gis mooy ci boutique ba bu soo déggee boutique de droit nag peut jaaye jaayewuñ fa dara mais dafa nekk ay màkkaan yi nga xam dañ ko mettre en place pour permettre population yi ñu am conseil orientation ak accompagnement bi nga xamante ne moom moo gën ci wàllu yoon. Mhm. loolu en tant que membre de la GIES mais également coordonnatrice de boutique de droit de Médina. Mhm. ñun suñu prise en charge bi. prise mhm. en charge la juridique judiciaire euh, médicale mais également. Euh, psychologique mhm. maanaam tey nit ki euh, victime bi su ñëwee si ñun lu ñuy njëkk a def mooy dalal ko orienté ko accompagner ko que ça soit procédure judiciaire yi euh, accompagnement médical mais également psychologique peut-être su ñu nee accompagnement yooyu noonu yëpp di ne Euh, association de juristes sénégalais ci wàllum yoon la ñuy yëngu mais loolu terewuñu ñu def euh, euh, prise en charge boobu noonu yëpp ndax dañuy lëkkaloo ak yeneen structure yi nga xamante ne tey victime bi tey nu mu soxlaa tey nga joxe ko nga wutal ko avocat moo dem mu représenter ko au niveau du tribunal noonu la soxlaa tey dem ci médecin bi mu xool ko noonu la soxlaa également am un suivi psychologique bi nga xamante ne dafa c'est am na solo lool ci prise en charge bi Mm-hmm. Eh, di wax rek mbokk yi yéen mën ngeen bokk si émission bi bi ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 ñi ñuy waxtaanee moo di wàllum euh, VBG maanaam violence euh, basée sur le genre ñuy dalal Sido Diallo di coordonnatrice euh, bu boutique de droit bu Médina waaye Sido gis na ni jamono ji am na lu xew muy pandémie mooy coronavirus bi nga xamante ni tey mooy jur ñeenti weer ci bi mu duggee ci senegal ba léegi mm-hmm. yéen ci ci ci ci seetlu est-ce que da ngeen nemmeeku ni euh, mbas mi mu duggee ba léegi parce que am na ay mesures yu jot am bokk na ci euh, ay couvre-feu ak yu ni mel. Mm-hmm. est-ce que dafa yokk violence yi nga xamante ni ni ngi ko doon nemmeeku ci biir kër yi. Mm-hmm. ok pour mbas mi mooy Covid 19 mooy li nga xamante ni peut-être nag kenn xaaru ko woon. Mm. dafa jékki-jékki rek ñëw dal suñu kaw. tey ñun peut-être dañuy def ay euh, prévention dañ koy def. dañuy def ay activités de prévention sensibiliser et tout ça mais suñu nee Covid rek peut-être tey suñu taxawaay moom mooy accompagner nit ñi ci contexte bi nga xamante ne moom mooy contexte de Covid. accompagnement boobu noonu mm-hmm. lay nan lay demee. maintenant accompagnement boobu comme ñun aussi. Euh, jéem nañu gis nañu njiitu réew yi jël njiitu réew mi jël na dogal comme quoi que nañu arrêté yenn activités yi tout ça pour ñu stopper chaîne de euh, de compte de transmission de la Covid donc ñu aussi à un moment dañuy juger suñu makkaan yooyu ñu doon ubbi pour les populations dañ ko tëjoon ñu stand by ko comme ñun ñëpp tamit aussi ci contexte bi ñu nekk Euh, muy AJS muy keneen ku nekk redevable nga am nga rôle bi nga xamante da nga ko war a jouer pour nga stopper chaîne de contamination mais suñuy tëjee boutique de Touraye c'est pas dañ koy tëj rek ñu couragé suñu bara déedéet dañuy jël benn am nañu benn bi nga xamante ne depuis 2010 hmm. ñu ngi ñu ngi ko mettre à la disposition des populations mais dañuy hmm. bàyyi ligne verte bi di continuer pour permettre population yi vraiment di informer yu di am assistance ak orientation bi nga xamante ne moom moo euh, adéquat ak seen situation hmm. c'est vrai teg ngeen numéro vert. Mhm. Euh, mais la plupart du temps. Mhm. Euh, numéro vert danaan c'est gratuit mais pour nga am accès wala pour nga nit wuyu la ci euh, du yomb. Mhm. est loolu tamit amul woon lu mu freiné ci ci seen liggéey bi. non du loolu mënul freiner suñu liggéey déjà ñun suñu ligne vert bi peut-être bu njëkk avant la Covid da nga possibilité bi nga amoon mooy nga woote nit wuy la depuis boutique ba. mais léegi dañuy def. en sorte que tey ñun ah, avec membre membres de l'AGS ñu jël ay bu ay numéro vert bi ñu basculer ko vers seen ay numéro donc à la place où numéro vert bi da doon fonctionner de 9 à 17h léegi numéro vert bi dafay dem 24h sur 24 parce que tey su fekkee basculer nañ ko man sama numéro mën naa di wuyu nit ki fu ma toll. Hmm. donc loolu aussi ay jéego yi nga xamante ne dañ ko jël pour permettre population yi ñu am tey ñu continuer di bénéficier wu ci service de la l'AGS. Hmm. loolu ci numéro ver boobu noonu aussi yem nañu jéem nañu def ay suñu. ay moyen de ñu euh, gën a xamale nit ñi ak numéro vert bi mm-hmm. peut-être passé nañ par viale les réseaux sociaux def nañ ay affiches ji fépp fi nga xamante ni canaux bi nga xamante ni war nañ fa mën a jaar rek ba gën a mën a xamale nit ñi ak suñu ligne verte boobu ñu ngi ko doon def muy ligne bi nga xamante ne ba tey mu ngi fonctionner numéro ba tey jigéen ñu ngi ciy woote wala góor. Mm-hmm. ngir exposer seen seen jafe-jafe yi. Mm-hmm. Euh, bu ñuy euh, xool ci ci ci jafe-jafe yi ba ngeen gis ni moo ëpp nit euh, ñi mm-hmm. li ñuy ñëwoon di ci di ñaxtu. ci jamonoy Covid ci forme violence yi nga lim man moo ci gënoon a fës. Mhm. Ah, ci li ngeen jotoon a jot ci ay appel léegi nag ci contexte bi ñu ngi doon nit ñi ñu ngi doon woote peut-être di ñu souligner forme de violence yëpp mais lu ñu gën a seetlu mooy violence bi ñuy nattee ci wàllu koom-koom. ndax suñu xoolee Covid bi dafa am lu mu impacté économiquement dafa impacté les populations te dañuy xool ni jigéen tey moom mooy sujet vulnérable la mais autonomie am dafa des. Mhm. la plupart des femmes wala jigéen ñi ci gën a bëri dañuy évoluer ci secteur informel. te mhm. gisoon nañu informel bi dafa ralentiroon de trop loolu moom moo tax gis nañu euh, métital bi nga xamante ne ci wàllu koom-koom la moom moo doon gën a bëri li nit ñi di mhm. jigéen ñi dañuy doon ñaxtu. tamit euh, am na lu fi amoon mu di couvre-feu bi mm. euh, couvre-feu nit ki ngay dëkk moom euh, mm. de vingt heures ba fajar mm-hmm. du du yomb mm-hmm. violence physique bi aussi est-ce que def ngeen si woon seetlu gis ni kat violence physique bi wax dëgg yàlla mi commencé am dayo am dëgg la violence physique bi aussi si la bokk te am nañ cas yi nga xamante ne ci suñu boutique de jot nañ ko traité ci biir Covid bi ñi mm. nga xamante ne ay violence la comprendre léegi ndaxte suñu ne couvre-feu cohabitation bi dafay gën a large peut-être di nga gis borom kër bi nga xamante ne balaa mu doon ñibbi si këram minuit balaa mu doon ñibbi si këram fajar soo obligé vingt heures wala dix-neuf heures nga dugg si sa kër mm. donc environnement boobu dafay gën Euh, yombal yenn xeetu violence yi donc mm-hmm. violence physique yi dañ ko seetlu euh, bu baax aussi ci contexte Covid bi peut-être mm-hmm. mën na jóge ci transition nga jóge ci violence euh, économique maanaam violence bi nga xamante ne méttal bi nga xamante ne ci koom-koom lañ koy nattee pour mu tey engendrer toujours violence économique par exemple violence physique par exemple Euh, jigéen bi nga xamante ne tey entretien bi nga xamante ne wala toppatoo bi ko boroom këram waroon toppatoo boobu xaw naa des mm-hmm. donc loolu suñu deful ndànk rek mën na dem ba jur leneen moom mooy violence physique boobu noonu mm-hmm. Mm-hmm. Euh, jur leneen mën na ci bokk wàllum divorce parce que bu ñu jógee jëlee l'exemple de la Chine après seen confinement gis nañu tribunaux yi euh, li nu doon gën a traité bokk na ci ci ci divorce est-ce que vous vous pensez que Sénégal mën nañ toll ci risque boobu après confinement bi ñu nemmeeku ni kat Euh, kër yi dina tas ndax violence yi nga xamante ni. Hmm. Euh, ñu ngi ko doon subir ci euh, période couvre-feu bi. dëgg la loolu tamit mën na nekk mën na euh, mën na nekk source de wala mu gën a yokk divorce yi nga xamante ne moom lañ mu ngi fi woon ba ba tey ndaxte euh, suñu boutique ay boutique de droit yi dañuy gis ni jigéen ñi la plupart du temps suñu ñëwee pour formuler seen ay demande de divorce rek cause bu njëkk bi moom mooy violence économique maanaam peut-être ñàkk toppatoo dem nañ ba à un certain gis nañ ni bëgg nañ def ci ménage mais ménage aussi peut-être ay wax kese te téyewu ko mm. dafa am lu mu àndal jigéen ki dafa soxla ku ko toppatoo toppatoo mm-hmm. njabootam mais su fekkee dañ la beddi duñ la entretenir convenablement à un certain moment dañuy obligé dañuy gis ni li sës instant bi nii moom mooy ñu demander la divorce mm-hmm. Mm-hmm. ci violence économique boobu ci la ñuy euh, desandi Sido Diallo euh, di fàttali rek ba tey yéen a ngi seen a Afia FM ñuy waxtaanee wàllum VBG maanaam violence basée sur le genre ñu euh, linké ko ak jamono ji nga xamante ni Covid 19 mi ngi ci biir réew mi du jigéen ñi gis nañ ni ci marché yi mm. ci mbedd yi ñu ngi laal seen table mm. di jaay ah, ah, coronavirus ñëw ñëw ñëw dal seen kaw te sang wax nga am na benn autonomie financière boo xamante ni jigéen da koy da koy bëgg mm-hmm. ah, tey ñu gis coronavirus freiné est-ce que du doole jigéen wala kàttanu jigéen mm. la coronavirus tey na sax na waaw mun na nekk ndax coronavirus bi tamit bàyyiwul kenn laal na ñëpp mais su suñu nee si situation en situation normale gis nañ ni jigéen euh, économiquement dafa faible koom-koomam demeewul noonu donc su loolu yëpp suñu ñëwee corona ñëw tegu si dafay gën a metti mhm. loolu aussi jéem nañ seddu nañ ko par rapport ak cas yi nga xamante ne moom la ñuy recevoir mais tey en contexte de Covid AJS en plus de bàyyi numéro veram bi di continuer mhm. jéem nañ def ay actions maanaam di distribuer ay kits solidarité pour permettre yenn jigéen ñi même bu dee mënuñu fatt mal bi yëpp mais dina permettre au moins mu nekk seen accompagnement te loolu def nañ ko ci en trois phases permettre na plus d'une centaine de femmes tey jii nii ñu bénéficier wu ci kiit yooyu noonu. depuis ni kat jot na. maintenant Covid bi peut-être dafa am rek ñu rendre compte ndax tey jii nii ñun xam nañu ban façon cible la ñuy rencontré ñoom ñooy fugg suñu ay buntu tey. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. nañ xam ni kii fan la mal bi fan la exactement. peut-être ki nga xamante ne mu ngi doon jooy borom ngërëm jox joxu ko dépense Covid bi su ñëwee tegu si dafay gën a metti. Mm-hmm. loolu aussi peut-être ñu xaar sax ñun bu ñuy def suñu ay action euh, ñu bëri defaguñu woon dañuy gis ni lii lu war la ñun aussi war nañu mën a. assister au tournant en contexte de Covid les femmes. moo taxoon ñu def ay kit kit solidarité yooyu jagleel ko. ñenn ci jigéen ñi. am na beneen xeet boo xamante ni peut-être mën na nemmeeku ni dina fës. si mhm. jamono ji muy violence verbale. Mhm. ndax euh, nit dina toll foo xamante ni sa xool du neex. Mhm. Euh, au lieu nga génn dem jëli air couvre-feu bi tënk na la yaa ngi toog si biir kër gi. il suffit que nit ki wax si ah yow ngir nga gëdd ko. nga yuuxu ko nga saaga ko. violence verbale aussi est-ce na euh, recevoir ñuy ñu ñu koy ñaxtu. waaw su ñu nee violence rek peut-être dañ ko catégoriser ñu ne violence verbale physique psychologique économique mais. violence violence la rek tey peut-être que violence physique yi maanaam bi nga xamante ne ay gaañu gaañu nga la ci nit ki mën a jëlee mën a nekk li nga xamante ne tey mën na leen madame li may dund peut-être mënuma la ko su ma la su su ki ma ko teg su ma ko su ko waxul woon sa kanam doo ko gëm. donc mhm. violence verbale yi loolu aussi daf ci am daf koy accentuer te peut-être aussi ñu ngi koy teg jigéen ñi aussi mais jigéen ñi aussi ñu ngi koy tegaate. 88 628 05 05 ngeen di def mbokk yi ngir yéen ngeen bokk ci euh, émission bi li ñuy waxtaanee moo di wàllum violence basée sur le genre ak jamono Covid 19 taxawaay bi nga xamante ni waa AGS euh, wala seeni i boutique de droit euh, ñi ngi ko ci am. Mm. ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñi ngi ko ñi ngi ko ciy def bu ñu ñëwaatee ci prise en charge victime yi soxna si doo Diallo bokk na ci prise en charge judiciaire. Mm-hmm. ñu gis ni à certain moment. Mm. Euh, tribunaux yi dañoo dakkaloon liggéey bi. Mm. Euh, euh, ces moments là nan ngeen ko dundee woon bu ngeen amee cas bu ngeen xamante ni war ngeen ko exposer au tribunal war ngeen ko exposer avocat bi wala juge bi tribunaux yi tëj nan ngeen doon liggéeyee ci jamono jooju. waaw liggéey bi xawoon na metti ndaxte peut-être que AGS bëgg na continuer di fonctionner mais ñun aussi dañuy tënku ci tribunaux yi comme il une décision bi nga xamante ne c'est venu euh, du chef de l'État ñu décider arrêter activité au niveau du tribunal ci tribunaux yi. déedéet mm. nit ki mun nga ko ne yoon bi nii la mun nga ko rédiger plainte mais à un certain moment comme. amul woon aussi fu mu dem mu déposer loolu aussi dafa doon rendre la situation beaucoup plu plus difficile. Mmh. vous comprenez donc mu ngi doon essayer di xool yan peut-être on va jouer sur les médiation wala ñu xool naka lañuy ñuy mën a euh, dimbalee nit ki ba mu génn ci situation yooyu noonu et la plupart du temps comme ni ma ko waxee léegi avec suñu kit solidarité yi ah sax gisoon nañu loolu aussi nekk na li nga xam ne jéem nañ ko def pour permettre population yi ñu euh, ñu gën a mën a faire face à la situation donc euh, ci ci période Covid bi gis nañ ni. flagrant délit rek d'habitude yooyu moom moo doon jàll au mm. niveau du tribunal donc lu gën a bëri yeneen procédure yëpp dafa doon dañ doon am ay jafe-jafe pour pour mu jàll mais ça aussi peut-être que du si ñun chaine bi la chaine nationale la wala nationale bi la wala organisation judiciaire bi moom moo jël dogal yu toll noonu ñun ak tamit aussi ci tënku ci loolu rek lañ mën a def mm-hmm. Mm-hmm. mais à un moment donné bu dossier yi xawee bari noonu mm-hmm. est-ce que euh, gisoo ni <coughs> ñoo ñoo ngi jégalu dossier yi xaw a bëri euh, problème yi di fekkante mu ak mu ñu dem au tribunal mm-hmm. est-ce que AJS amul woon beneen beneen euh, beneen méthode. Mhm. ngir mën a venir en aide jigéen ñi comme ni nga ko waxee à part yi nga xamante ni parce que du di nga toll foo xamante ni du du lekk wala naan moom moo lay soxal. Mm, mais une assistance boo xamante ni euh, da gis nit ku taxaw ngir jàppale la ngir sa jafe-jafe mm. euh, dëdd la ban alternative kon laa si AJS jëloon. Mm. ngir mën a jàppale ñi ñu am seen jafe-jafe. waaw d'abord pour wax la aussi revenir ni que loolu yombul woon ndaxte mbas mi dafa ñëw rek dal suñu kaw kenn xaaru ko woon donc amul amul benn préparation en amont bi nga xamante ne da lay permettre yow nga def faire face peut-être que si avec les moyens du bord nga doon mën a demee te ñun aussi moyens yi foofu foofu la yemoon donc comme c'est une situation brusque bi nga xamante ne kenn préparé wu ko woon donc ça a été un peu difficile pour ñun ñu ñu def accompagnement bi mu am kii boobu noonu. Mm. effectif effectivité boobu noonu. mais ñu ngi sant yàlla peut-être que mbas baa ngi nii di continuer di am mais gis nañ ni tribunaux yi ñu ngi reprendre seen activité yi petit à petit. Mm. si wàllum sensibilisation mi gis nañ ni association yu bari. Mm. fësoon nañ trop di wàcc sur le terrain di def ay ay ay VAD di dem si askan wi di waxtaan ak ñoom. waa AGS est-ce que am mën yéen yéen mëne ay activités activités allant dans sens ngir jàppale askan wi. Mhm. ci ci ci mbas mi. waaw parce que gis nañ ci seen programme bokk na ci ay causeries yu ngeen naan def lu mhm. bari. Mhm. mais mbas mi ñëw am lu bari loo xamante ni euh, tere nañu ko. donc AJS euh, causeries yooyu de yooyu. après nan la nan la mujj demee ngir liggéey bi di dox. xam nga causeries moom comme ni nga ko waxee mënatul woon dem léegi nag peut-être on a essayé de jouer avec via les réseaux sociaux. pour di gën a mën a xamale ak askan wi ak mission AJS di leen gën a mën a orienter di leen wax ni di leen sensibiliser non seulement y a sensibilisation sur la pandémie mais également di leen wax ni service yi nga xamante ne AJS mu ngi continuer di ko offrir les populations comme ni ma ko waxee ci ci ci njëlbeen suñu numéro vert bi nu mu doon fonctionner sax dañ ko yokk dañ ko def service bi nga xamante ne c'est 24 heures sur 24. Mm-hmm. na permettre population yi ñu xam. au moins ñu am orientation wala su nit ki dara su ko dalee rek moo xam la première chose à faire wala attitude bi nga xamante ne moom la war a njëkk am. Mm-hmm. Euh, déjà on est à quatre mois. ba virus bi ñëwee ba léegi. Mm-hmm. Euh, bu ngeen doon def tey benn étude. fan la fan la xayma yi toll ci violence yi ban euh, fan la jóge ak fan la egsi ok léegi étude boobu moom c'est en cours yegg si jeexalaguñ ko donc mu duñ ci mën a prononcé wu bu baax mais lu ñu seetlu moom mooy violence économique maanaam métital bi nga xamante ne ci koom-koom lañ ko mën a natt moom moo gën a bëri wala jigéen ñi nga xamante ne ñoo ñooy les principales loolu la ñuy gën a jànkonteel ci société bi. Mm-hmm. Mm-hmm. violence économique. Mm-hmm. Euh, wàllum viol ak pédophilie yu ni mel da ngeen gis ni. Euh, am mi ngi am ba tey quand mais da ngeen gis ni yéegul wàccul wala dafa stable. waa yooyu aussi ba tey mu ngi continuer di am ndax peut-être ñun ñibbi nañ ci suñu ay boutique de droit ñu ko ñu ngi commencé di recevoir nit ñi physiquement dañuy gis ni ay cas de viol aussi mu ngi am mu ngi continuer di am ci ci ci société parce que à certaines heures y a personne dans la mm-hmm. euh, benn benn nit ku koo xamante ni ay pexeem euh, ay pexeem euh, baaxul mën na gis benn xale bu ndaw abusé ci moom. Mm-hmm. alors que foofu du am ku ko wàllu parce que ñëpp tëju nañ. Mm-hmm. donc viol yaakaar naa si jamono couvre-feu aussi. à travers les médias booy xool da nga gis ni viol bi ba tey ba tey mi ngi am. waa dëgg la mu ngi am ba pare suñu seetloo viol mooy li nga xamante ne la plupart du temps ci environnement immédiat bi lay amee maanaam ci biir kër yi sorewul ci biir kër gi wala soo génnee ci kër gi mm. donc contexte Covid bi comme ni ma ko waxee promiscuité bi xam nga dafay yokk mm-hmm. donc loolu aussi c'est des facteurs yi nga xamante ne facteurs yu agal maanaam day yokk tey xeetu xeetu xeetu violence boobu noonu mm-hmm. léegi nag état du Sénégal def na ci ay jéego peut-être ci ginnaaw société civile bi def action yi nga xamante ne li nga xamante ne moom moo amane l'état du Sénégal à criminaliser le viol euh, ak pédophilie loolu aussi ay jéego la wala mun nañ jàpp loolu ay réalisation yi nga xamante ne am na léegi nag le plus lu ci ëpp solo mooy que nit ñi dañuy dem di dénoncer. dañuy dem di parce que amuñu culture boobu tamit. dem culture boobu loolu aussi ñu ngi ciy jouer suñu rôle à travers suñu ay euh, sensibilisation via les réseaux sociaux mais également dañuy dugal suñu xeex dañ ci dugal xale yi te suñu seetloo xale yi les gens xale yi mooy ki nga xamante ne. viol suñ ko waxee peut-être que xale lañ koy teg mhm. donc comme xale yi ñoom dañu am seen ak ak seen ay yelleef dañ leen di déem a dugal ci combat ci sensibilisation pour ñu gën a mën a xam nu ñuy comporté wu ñu gën a mën a xam nu ñuy euh, Euh, euh, en cas suñu gisee benn malfaiteur bu taxaw seen kanam mais également di gën a mën a euh, permettre nit ñi ñu ñu leen di ñu leen di leen di bàyyi bàyyi xel ndax tey suñu seen ay spots yi nga xamante ne wala ay sketch yi nga xamante ne dañ koy def ak xale yi loolu day tax nit ñu gën a bàyyi xel xale bi nga xamante ne moom moo nekk ci micro bi. nee nga sànq liggéey bi yéen koy wéyandeel sur les réseaux sociaux. Mm. mais bu ñu xool Sénégal réseaux sociaux yi du ñëpp ñoo sam accès parce que mm. mm-hmm. am na. Euh, wàllum internet du ñëpp ñoo ko mën a am pourquoi pourquoi pas mm-hmm. à travers les médias surtout les rajo communautaires mm-hmm. xam ni euh, au fond fond au fin fond du Sénégal booy mm-hmm. demee rajo communautaire nga fekk la moo tax jaarewoo leen ci canal boobu ngir gën a dolli sensibilisation bi plutôt que ngeen utiliser réseaux sociaux yi dëgg la réseaux sociaux yi comme ni ngay wax tout le monde n'a pas ci réseaux sociaux yi mais gis nañ ni xale yi aussi xaw nañ ci présent. Mhm. comprendre léegi nag tey ñun ñu ngi fii dakaar en tant que coordonnatrice de boutique maa ngi ñëw fii di def émission ak yow. Mhm. suñu naataangoo yi nga xamante ne ñu ngi ci région yi ndax je rappelle encore ñun ñu ngi toll ak huit boutiques de droit. Mhm. donc ñoom aussi fu ñu nekk ci gox yi ñu nekk ñu ngi ciy béy seen waar à travers les radios communautaires. d' accord mhm. di fàttali mbokk yi ñi ànd si émission bi ak ñi nga xamante ni ñoo di waa AGS di kuréel gi ëmb jigéen yi nekk ci wàllum yoon fii ci Sénégal. Mhm. tey xeex lépp lu jëm ci ak ak yelleefu nit euh, de façon euh, générale rawatina mhm. euh, di xeex wàllum beddi konte gi nga xamante ni ñu ngi koy teg jigéen ak xale yi ndax ñu ngi koy jàppee. comme ni si loo wax rek jàpp nañ ñoom ñooy les plus li ñuy waxtaanee tey mooy VBG yooyu ci jamono joo xamante ni ngi ci maanaam euh, jamono yo euh, coronavirus mm. nga xam ne euh, tey jii ci ci ci seetlu la am ñeenti weer mm. ci bi mu duggee ci biir ci biir réew mi ba tey mm. ba tey mën ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05 ngir ngeen bokk ci waxtaan bi bu dee am ngeen ay laaj wala ay suggestion yoo xamante ni mën ngeen ko def ki nga xamante ni moo di sidoo Diallo di sunu invité Sido bu ñëwaatee si VBG di violence basée sur le genre bu ñu ko waxee euh, jigéen la ñuy njëkk xalaat la góor euh, di teg euh, wàllum fitna wala ay nattu alors que jigéen gi aussi mën na teg borom këram mhm. wala góoram fitna mhm. mën nga ñëwaat ci rapport boobu wala si ci jaawale boobu nga xamante ni yenn saa ni ñu ñi koy jaawale ci violence su ne genre nu yaakaar ni jigéen la mhm. góor bokk si waaw comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bi suñu ne violence su sur le genre mooy métital bi nga xamante nañ ko teg nit ki parce que jigéen la parce que góor la mais suñu définir suñu société wala suñu xoolee suñu société ni ñu ko tënkee tey muy ku jigéen ki moom mooy ku gën a vulnérable moom mooy ki nga xamante ne moom moo ci gën a néew doole donc violence yi su ñëwee la plupart du temps ci seen kaw lay tegu. Mm-hmm. à côté de jigéen ñi aussi am na gis nañ xale yi ndax ñooñu peut seen âge permettre leen ñu mun a défendre seen bopp wala ñu gën a jël en charge seen bopp mais du n'empêche que aussi violence mën na jóge nit ki mun na jigéen mun nañ ko teg violence comme aussi moom moom mun na tegaate xeetu ñaawteef yooyu noonu mm. mais ci suñuy société tey suñu convoqué suñu ay chiffres gis nañ jigéen mooy principales victimes violence yooyu. mais quand même on a des réalités socio-culturelles. Mm-hmm. Euh, qui font que euh, nee nañ euh, jigéen mënul euh, mënul nekk ci kaw góor. Mm-hmm. donc alaa kulli xaal góor moo war a nekk ci kaw. loolu esprit de dépassement boobu. Mm-hmm. pour selon yow la moo tax sénégale yi mën a gun ko am. dañu gis na chaque fois góor mu war a jiitu jigéen topp si. maintenant suñu société. comme ni nga ko waxee moom moo définir moom moo définir rôle boobu noonu moom moo ko attribué jigéen mu attribué ko góor. Mm-hmm. mais c'est pas que tey ku jigéen ki moom moo gën a vulnérable wala moom moo gën a néew doole ko moom moom moo war a dund xeetu moom la ñu war a teg xeetu xeetu ñaaw teef yooyu noonu. Mm-hmm. peut-être que ñi ñoo ko bëgg interpréter noonu mais pour. suñu demee ci cadre ménage tey ñu waxee c'est lépp le chef de famille dañuy bëgg am benn ménage bi nga xamante ne c'est bien structuré bien organisé mais c'est pas que tey loolu dafa war a tey tax ku góor gi di ay métit di ko teg soxnaam wala di ko yëkkati di ko bañ a di ko bañ a toppatoo comme ni ñu ko waxee di ba muy dem di dund ay violence économique yooyu noonu peut-être que appréhension wala dégg-dégg bañ ca waroon a am moom moo des loolu moo tax ñuy gis gën di noter violence yooyu léegi dégg-dégg boobu la mooy tax mu war a mën a leer seen bopp parce que tamit euh, ñiy def ay conférence ay sensibilisation mais jusqu'à présent les gens n'arrivent pas à comprendre mhm. genre mhm. lan ban ban ban est-ce que waruñu utiliser beneen méthode mhm. pour que ñu mën a comprendre bu baax que ni lii du jigéen dong mais jigéen ax góor la dëgg mais xam nga soxna si culture dafa fort. peut que di nga gis tey jii nii ay jigéen ñi nga xamante ne sax mun nañ li nga li ñuy wax ni mun na leen mun nañ ko bañ a jox importance boobu noonu. Mm. wala une bu ñu partagé ñun su suñu avis. Mm. mais comme ni ñu ko waxee culture dafa foor lu ñu mën a def moom mooy di gën di accentuer di gën di yokk sensibilisation yi pour au moins même suñu mënul tey fii ak suba ñu dindi loolu noonu mais de façon progressive dinañ ci mën a génn te loolu aussi AJS en tant que organisation de de société civile ñu ciy béy suñu waar ndax à côté des boutiques de droit tooguñu ci boutique de droit yi rek mais yenn saa yi dañuy wàcc si ci population yi pour def ay causeries yi nga xamante ne c'est ouvert à tout le monde du ñu dem di waxtaan ak jigéen ñi kese mais su ñu demee dañuy waxtaan ak askan wi su ñu nee askan wi nag góor ci la bokk jigéen ci la bokk imaam yi ci lañ bokk chef de quartier ci lañ bokk xale yi aussi dinañ ci lañ bokk donc sensibilisation yooyu noonu dina tax ba nit ñi di xoolaat. façon déggin bi ñu amoon ci violence basée sur le genre boobu. ci liggéey bi ngeen di liggéey euh, ci euh, xeex euh, coronavirus yéen waa AJS yéen it mm-hmm. yéen da ngeen a sóobu bu baax. ci mm-hmm. liggéey bi wax nga ko. Mm-hmm. am na ay loo xamante ni yéen a ngi bokk na ci jox ay kiit jigéen ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo. ci xeex bi yéen waa AJS mbaa wéetoo leen si est-ce que am na ay association de jeune wala yeneen membres yu société civile yoo xamante ni ñëw nañ jàppante ak yéen boole seen doole wala ay kuréel yoo xamante ni sax dañuy liggéey jëm ci. wàllum jigéen ak xale est-ce que euh, liggéey bi élargie ngeen ko ci ñoom ba ku nekk ma ci dugal sa loxo. dëgg la loolu am na contexte bu mu bu mu ñëwee AGIS aussi comme ni ma ko waxee dafa xalaat ñi ngi tey à côté assistance juridique boobu accompagnement boobu muy defaral askan wi dafa jot ñu mën xoolaat assister jigéen ñi ci koy ci côté koom bi moo moo waraloon ñu génnee ay kit solidarité. la moo tax ngeen di accentuer yow à chaque fois si koom dañu gis ni koom bi daal moo gën a sooxe. waaw moo gën a sooxe te suñu cible aussi jigéen ñi gis nañ ni ñun ci boutique de droit gis nañu lan la ñuy gën a jooytu koom bi ci la bokk. comme bi ci la bokk violence physique bi ci la bokk sexuelle bi ci la bokk mais ci biir ménage bi loolu moom mooy gën a sonal jigéen ñi ci seen ci seen biir néegu sëy mhm. loolu moo tax ñu ñu ciy revenir léegi nag AJS mën na am ay partenaires yu mu àndal te wéetuñu ci combat mais société civile bi tey dañoo seetlu ni que AJS nu muy agir ku nekk yaa ngi xool ca domaine ba nga nekkee nga jéem a def benn action pour pour pour bénéfice u askan wi yëpp. Mm. aussi ñu ngi jéem nañ apporté comme ñeneen yeneen euh, organisation yi nu ñu jéemee euh, def euh, apporter leur pierre à l'édifice face à pour pour pour Covid pour Covid bi nga xam mbas mi nga xamante ne dafa ñëw dal suñu kaw. Euh, ci xeex bi ak ci mesures yi. Euh, bokk na ci euh, li nga xamante ni nekk na obligation léegi ci Sénégal maanaam tor port du masque. Mm-hmm. mais ñu nemmeeku sénégalais yi ñoom seen bopp ni ñuy wàllum masque yi. ni ñu ko war a respecté respecté wuñ ko noonu ndax parce que nañ koy soleek. nañ mm-hmm. koy takkeek. Mm-hmm. yenn saa ni jël ko dugal ci poosam yenn saa ni du jël dool ci saagam ba tax loolu war sax force de l'ordre di nekk ci mbedd yi pour veiller. veiller à ce que nit ñi ñuy takk masque bi euh, où se trouve le problème pour yow ba nit ñi mun ñu respecter port du masque communication bi ñu ci waroon amal mm-hmm. moo des mm-hmm. wala euh, nit ñi ñoom ñoo parewul mm-hmm. euh, psychologiquement pour dund genre situation boobu waaw peut-être ma commencé fi nga fi nga daanelee ñàkk pare psychologiquement bi ci la bokk kon ndax mbas mi dafa ñëw fekk ñu fi daanu suñu kaw. Mm. donc nit ñi amuñu woon cette culture la de port de masque maanaam tàmmuñu di ko def raxas loxo yi aussi dafa desoon. Mm. donc loolu moo tax nit ñi. loolu su ñëwee dal suñu kaw pour passer le message wala balaa nit ñi di xam li ngay wax il faut du temps et je pense que petit à petit gis na nit ñi ñu ngi gën a am cette prise de conscience la mm. léegi nag ags mu ngi ci combat bi la bokk riposte Covid bi la bokk moo tax ñun aussi on a pensé confectionner des masques yi nga xamante ne dañ ko defar jox ko population yi ñu mun a ñoom aussi pour passé la message ndax tey soo defaree leen nit masque nga jox ko rek peut-être euh, li nga ko jox dina comprendre ni que joxewu ko pour nga ranger ko ci sa poche mais dafa am lu tax nga nga joxe nga jox ko ko. Mm. donc muy combat bi nga xamante ne du AJS kese mais ku nekk war nga mën a génne ci par moye yi nga yore nga euh, participer ci comme ci lutte boobu noonu mm-hmm. contre le d' accord euh, di wax waxtaan bi ñu si ànd ak Sido Diallo di coordonnatrice boutique de droit bu euh, Médina mm-hmm. li ñuy waxtaanee moo di wàllum VBG maanaam violence basée sur le genre mm-hmm. ak jamono joo xamante ni Covid 19 mi ngi ci biir euh, réew mi mm-hmm. est ce que Sido Diallo après Covid ñu ngi koy ñaan yàlla mu jeex léegi lan ngeen gis. wala ci seetlu est am nga lu ngeen gis loo xamante ni mi ngi ci ginnaaw après Covid lu mel ni ci wàllum xeetum violence sax yu ni mel. cest à après Covid. Mm-hmm. est-ce que euh, y a aucun amul benn risque boo xamante ni am na jëm ci wàllum violence basée sur le genre. waaw xam nga Covid bi moom dafa ñëw fekk fi violence bi loolu moom lañ ko waxante Covid bi dafa ñëw fekk fi violence bi donc daf ko jël daf ko fekk ci yoonam mu fekk ko fi. Mm-hmm. peut-être mën nañ ne contexte bi dafa ñëw ak gën a yokk violence boobu noonu. Mm-hmm. comme mu niñ ko waxee muy violence nga xamante ne ci biir kër gi lay xewee wala mu nekk ci wàllu koom-koom. mais aussi su demee aussi dañuy violence du ñàkk le plus important moom mooy que tey ay organisation comme AGS suñu continuer di mën a seen combat population yi aussi am nañ ci rôle bu ci war a jouer ndax tey AGS suy wàcc di waxtaan ak askan wi wala mu ubbi ay boutique de droit su ubbee aussi il faut dañuy soxla population bi nga xamante ne comprendre nañu wala tey jéem ñu jàppale seen bopp comprendre nga ndax dénonciation bi doo jàpp kenn ci loxoom nga ne ko demal nga dénoncé xeetu fi euh, métital bi nga xamante ne mhm. teg nañ la ko mais da ngay ñëw nga soumettre ñu sa cas ñu mën la accompagner ci lool et ça aussi c'est un travail de sensibilisation mhm. comme ni ñu ko waxee sànq culturellement nit ñi amuñu habitude di dem di dénoncer loolu moo waral loolu noonu yëpp mais Covid bi moom ak euh, violence bi Covid bi dafa ñëw fekk violence bi en d' accord ci wàllum dénonciation boobu est ce que tamit amul lum lum lum leen euh, gàllankoor tuuti parce que nit ki boo xamul jafe-jafeem. Mm-hmm. doo ko mën a fajal. Mm-hmm. Euh, donc wala ñu xaar ba xam ne léegi c' est trop tard mbir mi dem na ba ëpp loxo. Mm-hmm. ñuy doog a ñëw si si si yéen ngir mën a euh, wax wala ngir mën a confier wu. ñàkk dénoncé ñàkk dénonciation boobu li nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy def ndax yenn réalité yi mooy li nga wax moo am suñu réew mi. dénonciation boobu est-ce que tamit nekkul li nga xamante ni moo gën a poussé. Mm. wala mooy gën a encouragé euh, mm. violence yi parce que damay def te dara duma ci fekk tamit. Mm. boo léegee nga defaat ko. waaw loolu moom ma dëgg la tey. AJS ma ko waxee dañuy def un travail de sensibilisation pour pousser les populations ñuy génn di dénoncer. ndax mm-hmm. suñu jëlee tey violence yi wala inceste yi ngay dégg dafay xewee ci cadre familial. maanaam mm-hmm. du soxe du sore environnement wala du génn ci biir kër gi nga xamante ne moom la victime bi dëkk soo xoolee rek. soo gestoo peut-être mën nga jàpp ci ki nga xamante ne moom mooy auteur auteur bi. Mm. mais les nit ñi maslaxa lañ bëgg. dañuy mm. euh, nëpp nëppal bi lañ bëgg. donc mm. dañuy préféré tey ñu toog ñu waxtaanee ko ci biir famille bi wala ci biir quartier bi. que ñu dem ñu dénoncer mais loolu dafay gën di encourager. kii yi auteurs yi ñuy def li ñuy def. Hmm. léegi gis nañ ni état du Sénégal criminal criminalisé na viol bi ak pédophilie bi mais loolu yëpp c'était c'est pour ñu dissuader ñi nga xamante ne ñoom ñooy def. mais ñooñu aussi pour ñu xam ni lii mu ngi foog nit ñi di dem di dénoncer comme ni ko waxee aussi di dénoncer à temps ndax suñu seetloo pour ce qui est des ay cas de viol affaire yooyu noonu am na moment bi ngay dem pour dem dénoncer rek da ngay pour nga les éléments de preuve déjà da nga koy effacer. Hmm. donc ñu ngi ñaax encore une fois population yi ñuy dem di rapprocher wu structure comme AGS à temps di mën di bénéficier wu ci accompagnement boobu bi nga xamante ne moom moo wax di rappeler encore une fois AGS service am dafa gratuit te makkaan yi dañ ko ubbi pour population verte bi c'est pour les populations actuellement à Dakar en dehors da Dakar am nañ ci yeneen cinq bout euh, six boutiques yi yeneen région loolu yëpp c'est pour permettre ñi ñi ñu bañ di dox ay kilomètres de kilomètres pour ñu am assistance wala accompagnement boobu noonu moom la ñu soxla mm. donc nit ñi il faut ñu jàpp si aussi pour ñu am culture boobu cette culture de dénonciation. am na xeex bi ngeen doon xeex moo di wàllum criminalisation viol. Mhm. ak pédophilie ay jamono indi woon na coow ñu dem ba ñu daal di voté loi bi. Mhm. léegi euh, euh, pédophilie ak viol. Mhm. dañ ko criminaliser mais est-ce que li ngeen ngeen doon xeex li nga xamante ni moom ngeen doon bañ. Euh, mujj na antu ba ca ba ñuy voté loi bi. duñu doon bañ. maanaam am na yenn critères yoo xamante ni euh, amoon na ci ba tax ngeen ni woon yooyu tànk euh, leerul. Mhm. Euh, mbir mi duñ ko am na lu ko tardé loon daal ci maanaam. bu mhm. ñu voter loi bi. Mhm. est-ce que loolu nga xamante ni moo tardé loon criminalisation beeg viol yi tey. lépp leer na ba képp koo xamante ni viol nga def wala wala pédophilie dañ lay tëj comme un criminel. waaw moom comme ni ñu ko waxee loi bi voté nañ ko promulgué nañ ko donc c'est applicable instant bii nii depuis bu ñu duggee entre en vigueur au mois de janvier ba tey fee yi nga xamante ne dafa xew ci cadre ci contexte boobu ba nii dañ koy su fekkee euh, viol la wala mu nekk pédophilie dañ koy yoon daf koy considérer comme crime Euh, léegi euh, est-ce que boobu ba léegi du ñàkk ci ci ci diggante bi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni def na acte yu ni mel. Mm-hmm. Euh, on traîné na leen devant les tribunaux. Mm-hmm. ci àtte yi jot ngeen a fekkee àtte boo xamante ni crime la walla pédophilie. nit ki ñu tëj ko comme ñu tëj ko peine bu ñuy tëj un criminel. àtte bi moom peut-être jotuñu fekkee mais recevoir nañ ay kaa yi nga xamante ne ay cas de viol la. te jébbal lañ ko suñu ay avocat et traitement bi si en cours bokkul suñu nee crime nag peut-être dafay gën a jël instruction bi ak enquête bi dafay gën a jël temps donc mu nekk li nga xamante ne si ne avant day gaaw après ñu àtte mais dafa am li nga xamante ne moom la. moom lay àndal kon seen taxawaay dafa am fu muy yem. Hmm? taxawaay bi ngeen di taxawu victime bi dafa am fu muy yem. c'est-à-dire. Ah, du du ngeen dem ba au fond du dossier du ngeen dem ba à la fin du dossier xam kii fan la mujj genre. si. te ndax ñun AIS dañuy commettre ay dañuy jox nit ñi ay avocat pour dem di leen représenter donc soo ko joxee nit ki avocat xam nga ni dossier bi dossier AGS moo ko jël en charge ñun ñoo koy suivre. Mm-hmm. ba ba à la fin donc loolu on a toujours l' information sur nos victimes. Mm-hmm. et que avocats yi suñu ay avocats lañ ñoom la ñuy liggéeyal. 88 628 05 05 moom ngeen def mbokk yi. Mm-hmm. ngir mën a bokk ci émission bi dañuy waxtaanee mu di wàllum VBG maanaam violence basée sur le genre. ak jamonoy euh, Covid 19 ñu ñëwaat ci euh, Covid 19 boobu. Euh, président de la République am annoncé na euh, fin état d'urgence mm-hmm. ak euh, fin euh, li di couvre-feu mm-hmm. nit ñi ku nekk delluwaat sa liggéey ci ci ci ci ci ci ci ci ci société bi mm-hmm. violence bi nga xamante ni mu leen doon nemmeeku ci kër yi néew ma du fi dañ mais as néew mën na am dina xaw wàññeeku comme couvre-feu bi jàll na Euh, est-ce que yéen a ngi xaar ay plainte yoo xamante ni. Mm-hmm. Euh, euh, yu yokk lay nekk wala yuy wàññi ci couvre-feu bi nim jeexee nii. ñu xaar ay plainte euh, maanaam ay victimes yoo xamante ni mm. wàllum euh, violence ñu ngi koy dund mm-hmm. gis nañu couvre-feu bi bari woon na trop kër yi tàngoon na mm-hmm. euh, tension yi daa woon na jóg xuloo bi bari woon na ndax dancaloo bi ci lan doon dund mm-hmm. mais couvre-feu bi jeex na xalaat ngeen ni loolu dina wàññeeku waaw mën na ci am impact nag ndax dañuy seetlu promiscuité bi aussi source de violence la wala moom mooy gëna yokku métital yooyu noonu ci biir kër gi wala violence yi ci ci biir kër gi léegi nag reste ñun ñu ngi suñu ay boutique de droit ubbi na te ñu ngi recevoir aussi ay cas cas aussi cas yu divers la ci euh, wàll bu nekk ñu ngi koy recevoir donc comme ni ñu ko waxee en en amont mooy ko nit ñi nañu continuer di am cette culture de dénonciation ndax tey dara su la mettee wala ñu teg la dara. foog nga dem nga jooyee ko fa nga ko war a jooyee. Mm. donc AJS mu ngi fi ubbi seen ay boutique de droit am pour ñu am assistance bi nga xamante ne moom moo gën ci ñoom wax naa sànq assistance juridique judiciaire wax naa psychologique wax naa médicale loolu yëpp mën nañ ko bénéficier wu ci suñu ay boutique de droit. également AJS mu ngi fi pour permettre population yi vraiment ñu gën a mën a am. écoute bi nga xamante ne moom lañ soxla ndax victime bi aussi la plupart du temps su ñëwee dafay soxla écoute. Hmm. donc service yi gratuit euh, mun nañ la rédiger plainte fekk doo fay mun nañ la jox avocat fekk sa doom du si génn am nañu une ligne à la disposition des populations donc ñu ngi leen di ñaax rek ñu am culture boobu noonu ndax tant que du ñu dem di dénoncer. comme ni ñu ko waxee sànq peut dañuy continuer di gis euh, euh, euh, métital yooyu noonu wala dañuy continuer di gis jigéen ñi comme xale yi ñu leen di teg xeeti métital yooyu foog il faut ñu am cette culture maanaam ñu am benn toogaay bi ñu wax a. toogee tamit fit bi fit bi est-ce que wax ngeen leen tamit nan la ñuy def ngir mën a takk euh, seen seen seen fit ba mën a wax li nga xamante ni moom parce que euh, li nga wax rek la les gens se lavent en famille loolu la Sénégalais am habitude mm-hmm. wax. te bu dara amee danaa na leen ko waxtaanee ci biir euh, kër gi. Mm-hmm. loolu courage la laaj. Mm-hmm. pour nit ki mën a dem dénoncer ki nga xamante ni moo di jëkkëram wala ki nga xamante ni moo di mbokkam. ni moom kat moom ma teg fitna bi. fit boobu selon yéen est jigéen bi wala. góor bi dina ko am de peur que société bi xam nga am benn benn bët buñ koy xoolee wala lenn loo xamante ni diñ ko dinañ ko teg ci deram dëgg la sénégalais moom dafa ragal regard de la société peut-être ñun boutique de droit yi ñuy yore dañuy gis ni jigéen ki mun na ñëw pour nga accompagner ko ci bonne procédure mais am na si ñoo xamante ne en cours mun nañ désister mm-hmm. parce que peut-être que y la pression familiale y a la pression sociale. ki mhm. bi nga xamante ne moom moo fi nekk bool tax tey dañuy dellu ginnaaw wala du ñu am fit di continuer jusqu'au bout. mais di leen wax ni peut-être que société bi moo gisee noonu mais yoon dafi toog pour ku wàcc yoon rek ñu teg ñu ñu delloo la ñu delloo la ci yoon. Mhm. donc nit ki c'est pas parce que tey yow da nga mën a en tant que jigéen da nga war a mën di continuer di nekk une victime. ah di ko continuer di dund te violence ça peut rek tey gis nañ fi ñi nga xamante ne seen biir néegu sëy ci horreur la lay terminer maanaam lu kenn ñaanul ay bakkan yu rot donc loolu suñ ko stoppé wul dafay dem ba day gën a yàq société bi te violence bi comme ni ma ko waxee jigéen ñi ñoom ñooy les principales victimes donc il faut ñu fit boobu noonu ñu am ko du am fit parce que da nga wàcc peut-être li fi fekk culturellement mais fit bi pour yow nga xalaat ci sa bopp en tant que victime wala parents yi ñuy xalaat seen doom yi en tant que victime ñu bàyyi nëpp nëpp bi ndax li ma wax encore une fois arrangement yi ak nëpp nëppali loolu aussi frein la dafay gàllankoor ñu suñu ay activité wala suñu mbébét bi nga xamante ne moom lañ am ci askan wi pour euh, ñu gën a euh, considérer seen àq ak seen yelleef. yi euh, yokk. Euh, euh, moor yi mi ngi mi ngi yokk mhm. le respect des mesures barrières te bi ngeen defee benn seetlu est-ce que sénégalais yi ñu ngi ci yoon bi wala euh, yaa di yaa des choses yoo xamante ni war nañ si gën a góorgóorlu waaw mesure barrière yi peut-être communication bi peut-être mu ngi jàll ñi ñi ñu ngi wax nit ñi attitude maanaam comportement yu ñu war a am mais ñu continuer di xam ni rek mbas mi mu ngi fi mbas bi mu ngi fii te mu ngi woo def ay preuve am donc ku nekk aussi na def preuve de responsabilité individuelle mhm. mais également collective individuelle mooy li nga xamante ne ku nekk da nga ko war a tenir compte individuellement ñun askan wi yëpp ñu mun a xam ni mbas bi mu ngi fii et ñun ñoo ko fi mën a pousser wala ñun ñoo mën a def en sorte tey dégâts yi nga xamante ne moom la ñuy dégg mu koy mu ngi ko def feneen mu nekk si ñun ci dégg mu yem ci ñun ci dégg-dégg rek mu bañ a nekk kon kon mu bañ a nekk mu bañ a traduire en acte d'accord Sido jàlloo di coordonnatrice boutique droit bu Médina. Mhm. Euh, waxtu bi daanaka euh, jeex na ba doon tàggoo ak message bi nga xamante ni moom ngay lancé jigéen par rapport ak fitna yu ñuy dund. Mhm. ak euh, jamono ji ak ñoom ban taxawaay leen war a am surtout ak présence boutique de droit yi fépp ci biir Sénégal. waaw ok merci jërëjëf di jeexale rek di wax ni AGS mu ngi fi def mettre na en place ay boutique droit maanaam ay makkaanam pour les populations. am nañ également une ligne verte bi nga xamante ne mooy 800 805 805. nañu ñëw di mën di dénoncer di am cette culture de dénonciation ndax violence yi que ñu criminaliser tey viol bi walla pédophilie bi du ñu servir dara tant que ñun demuñu jooyee ko fañ fañ ko war a jooyee. Hmm. donc foog nit ñu delloo seen xel am cette culture de de dénonciation ku nekk aussi bàyyi xel ni que. violence ça peut dégénérer mën na jural nit ñi li nga xamante ne on s'y attendait pas. Mm. donc AJS mu ngi fi en tant association de jeunes sénégalaises pour la promotion et la vulgarisation des droits humains donc ñëw leen suñu ay euh, services c'est gratuit te présent nañ on a essayé également d'être présent à euh, euh, dans maximum de de de de de ci ci d'espace ci ci ci kii bi. ci ci ci réew mi. Mm. di ko jaajëfal moom Sido Diallo nekk coordonnatrice boutique de droit bu Pikine tey moom lañ doon àndal si waxtaan bi nga xamante ni liñ si doon amal moo di euh, liñ si doon waxtaanee moo di wàllum VBG maanaam violence ak euh, lépp loo xamante ni fitna la wala métital bu ñuy tekk si nit rawatina góor euh, rawatina jigéen wala wala xale. Mm-hmm. ak jamono ji nga xamante ni mooy di coronavirus du Covid 19 ñoom waa AGS ban taxawaay lañ ci am wàllum prise charge victime yeeg wàllum rôle bi nga xamante ni boutique de Troyes yi ñu ngi ci euh, euh, ñu ngi ci euh, am ci boobule xeex déglu ngeen leeral yi nga xamante ni indi na ko ci mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci déglu bi di leen jox rendez-vous si beneen émission incha allah. Tous les enfants ont des besoins spécifiques et chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Partout, les enfants subissent au quotidien toute forme de violence et en cette période de pandémie, nous sommes plus exposés. Ne négligez pas nos droits durant cette période de Covid. Protégez tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique, négligence, Notre opinion n'a pas été prise en compte durant cette période. La covid ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droit à l'égalité, droit à une famille, droit à un environnement droit à la protection, droit à l'éducation, droit au loisir, droit à l'expression. Les enfants, l'AGS et Save the Children, tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de Covid.